jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb mbokk yi nuyooti nañ leen am kontaante ak mbégte comme ni leen koy defalee saa su di ñaan yàlla suñu borom mu defal ñu jàmm defal ko mboole mi jullit ci altine bi nga xamante ni ci la ñu dugg sëñ Bas ma lay nuyu borom mbég meegtaar mi di la siyaar ci njàngat làmb maa lay siyaar bu baax a baax sëñ Bas. waaw Baye Jili maa ngi lay nuyu di la siyaar yow aussi di la ñaanal jàmm di nuyu aadama sunu caméraman bi di nuyu euh, Ousin Fatima. kilifa gu mag gi gaa nekk ci wasaare bi yëpp ñu ngi leen di nuyu leen ziar di nuyu mbokki internet yi ñu nuy bàyyi xel saa su nekk ci wasaare làmb donc euh, di fi di fi di fi di fi di fi euh, taaxirlu ay xibaar <laughs> xibaar du jëm ci wàll làmb comme ni nga ko waxee rek jàngat làmb bi saa su nekk dañuy ñëw ngir indi ay leeral cële ko ci journal sunu làmb bi ak lépp luy xew-xewu làmb rek fas yéene cee waxtaan baa jëli moo waral ñu koy yër ci xët gu njëkk bi nga xamante ni mooy suñu làmb ñuy fàttali mbokk yi rek tey la lundi 6 avril 2020 sëñ Bas euh, suñu làmb bu njëkk bi di wax ci ki ñu gis kenn koo xamante ni mooy suñu papa Abdoulaye Makhtar Diop nga xamante ni mooy grand sëriñ de Dakar mu wax ci li nga xamante ni mooy Sitor nduur ak euh, la ca xew yépp ci euh, problème am beeg CNG sëñ Bas loolu lu ci sama papa wax. waaw sunu papa Abdoulaye Makhtar Diop bu waxee ci làmb mën naa ne wax na fu mu war a wax parce que sportif la de haut niveau mm-hmm. euh, représenté na Sénégal fu ci nekk xam nañu ko mu nekk kilifa donc euh, euh, yàgg yëngu ci sport donc nekk koo xamante ne nii tey sport da ko war a delloo njukkal bu waxee ci làmb rek jaanam wàcc na war wax na fu mu war a wax aussi te problème bi dañ ci sàkku Euh, mën naa ne xalaatu ñëpp. rawatina ñi nga xamante ni ñoom ñooy yëngu dëgg-dëgg ci sport. tey problème mu Sitor ak euh, CNG yematut ci làmb rek. mais ci sport bi yëpp la. parce que bu sooxee rek sport bi dina am parti bu sooxe ci sport bi te bu amee parti bu sooxee ci sport bi sport bi ci boppam day sooxe. li gën mooy fépp di dox. moom li mu wax mooy euh, rajo bi nga xam ne rajo nañ ko Sitor moom euh, fim mu ci taxaw rek moom la ci benn juriste bu nekk fac droit taxaw moom mooy Sitor bu fekkee ne arrêté ministériel moom moo ko nome kon amul benn commission boo xamante ne nii am nga euh, capacité mën koo raje amul benn commission boo xam ne nii war nga koo mën a raje bu fekkee ne arrêté ministériel moo ko nommé donc moom leeral na foofu bu dee moom ministre bi moo ko nome par arrêté moom Sitor CNG mënu ko raje la xam te moom bu waxee loolu aussi war nañ koo mën a gëm parce que juriste la. Père Ablaye Makhtar Diop bu nu fàtte ne euh, jiite na fi commission euh, réglement ak euh, discipline bu bu bu handball. donc jiite na ko mu duñ ne réglement discipline ak kii sax parce que ñoom bu fekkee ne kii la dañuy naan réglement discipline et pénalité moom lañu règlement euh, pénalité moom la ñuy wax bu dee ci wàllu handball ci wàllu làmb moom la ñuy wax règlement discipline jiite na ko ba pare euh, commission boobu boo xoolee moom bokk na aussi ci ñi jiite ñi bokk ci euh, nu ñu ko waxee sax fédération handball bu Sénégal en même temps aussi représenté na Sénégal foofu noonu di FIFA te FIFA aussi boo xoolee ci même <clears throat> niveau boobu wala ci même structure yooyu ci la doon liggéey ci wàllu réglement ak pénalité. Mm-hmm. donc juriste la boo xamante ne nii xam na li muy wax min na ko def na ko au niveau national nekk na ko au niveau international donc bu ci waxee rek war nañoo xam ne ab juriste moom mooy wax. Mm-hmm. donc li mu wax foofu mooy CNG amul capacité amut compétence su rajo ki nga xam ne nii Sitor Ndour la bu fekkee ne arrêté ministériel moom moo ko kon CNG warul koo mën a dàq ci ci li nga xamante ni mooy bopp CNG. non non waru koo mën a dàq xanaa lenn mooy tey CNG bëgg koo dàq dàqlu ko maanaam bind ab lettre jébbal ko ministre des sports xamal ko ne nàngam ak nangam la def dañuy sàkku asaka nga raje ko. bu ko defee ministre bi moom mooy jël euh, ci ay prérogative am raje ko wala mu suspendre ko wala leneen. donc loolu moom ministre bi moom moo ko mën mais pas CNG bu fekkee ne arrêté ministériel moom moo ko nommé. Hmm. waaye Sitor moom xam nañ ni du arbitre bu ndaw te bis bu ne ba nga yaakaar ci làmb rek muy événement bu mag Sitor Ndour arbitré na ko te it arbitre international la te it macha allah ku mën li muy def la. kon nag euh, réeroo amul ñàkk waxtaan am waaye est-ce que est-ce que CNG bi. dàq Sitor euh, la ñu lu ñu jublu ci est-ce que fi mu toll nii dafa mel ni sëñ Bass li arbitre di doon ñaxtu mu jéewuñ cee wax léegi fi mu toll nii ci li ñuy wax mooy dàq bi ñu dàq Sitor noo gisee loolu. waaw loolu aussi mën naa nekk luy euh, luy fay coow. gis nga coow coow koy fay. coow coow moo koy fay parce que li tax coow di ko fay mooy gis nga problème bi bi mu amee ñu ne arbit yi dañoo dem grève. dem nañ grève. CNG jékki rek génne benn décision raje naa kii dàq naa kee aj naa kee donc loolu automatiquement nit ñi bu ko déggee rek dootuñu sukkandiku ci nañ dem wax ak arbitre yi pour ñu delluwaat ci seen liggéey mais liy wax ji mooy nañ wax ak CNG pour mu baal leen. bu boobaa aussi bu fekkee ne dañoo daanu ci pièce boobu. ñëpp daw ñëw ne nañ wax ak CNG ndax mu baar arbitre yi bu boobaa bu ñu ñëwee CNG aussi li muy wax li muy mën naa teg ay conditions amul benn problème mën nañ leen a jéggal ñu continuer seen liggéey bu boobaa seen i revendication day mel ni amatut. parce que décision bee ci la ñëpp di concentré wu gis nga sax képp ku wax li ngay wax mooy waruñu ko raje waruñu ko raje nangam la ci làmb am na ñeneen ñoo xam ne nii sax bëgg nañoo ñaan intervention wala ñaan njekk à ce que CNG teggi déci euh, teggi euh, kii yooyu peine yooyu nga xam ne nii teg nu ko seen kaw. mais loolu day tax ñu fàtte ñoom seen i revendication dootuñu waaw dootuñu dootuñu ko lijjanti. xam nga xeex moom noonu la. Euh, mais nag per Makhtar moom indi na ci ay leeral ay leeral yu am solo parce que nee na grève ñaari fan. waruñu cee rajo nit parce que bu ñu fàtte aussi que arbitre yi grève ñu weer grève ñu ñaari weer grève ñu semaine grève ñu ñaari semaine deux jours la ñu grève mooy samedi ak dimanche ba. lënd ñu ñu dàq si nii ñu ñu si spade leen waaw <laughs> loolu moom macha allah loolu moom képp ku ko dégg sax ay ree la lay def euh, sëñ Bas ñu ñëwaat ci kenn koo xamante ni kenn du ko présenté ci làmb muy Pierre Omès Diagne Pierre Omès Diagne mi nga xamante ni mooy moo yoroon. bawal mbooloo euh, Père Omez am na lu baree bari lu mu wax ci làmb ji li mu wax lépp dama bëggoon nga euh, wax ma ko lan la ci Père Omez waaw ci bawal mbooloo goog ngay wax rek moom moo yoroon ñoom Tafatine. Euh, laaj nañ ko ci sax digganteem ak Tafatine mais xam na ne Tafatine moom la mu nekkoon ci moom ba léegi la nekk ci moom. Mm-hmm. rakk la doom la. mais fàtte na sax li ko jotaleeg Tafa li waral seenu bàyyante euh, mais ñëwaat na aussi ci problème bi nga xamante ni moom moo am ci làmb ji rawatina li Père Makhtar doon wax rek muy diggante CNG ak euh, arbitre yi foofu aussi moom dafa rejoindre Père Makhtar Diop. moom li mu xamle mooy. amut euh, benn benn benn benn benn compétence bu may CNG à ce que ñu raje Sitor mhm. moom it loolu la wax comme dañ koo nome par arrêté ministériel donc CNG waru koo mën a raje euh, loole la xam ne mais aussi ñëwaat na ci beneen mbir boo xamante ni mën naa ne révélation la parce que ñun ñu ngi koy doog a dégg bu ñu fàtte ne euh, waa làmb amoon nañu am ndëpp bu ñu amaloon le vingt ak le 21 octobre 2018 mhm. ci arène nationale ñaari fan yoo xam ne ñu ngi doon waxtaan ci làmb mais waxtaan ya fa tukkee woon presque amuñ ci ci woon lu leer a leer a leer mm-hmm. mais tey la koy doog a xamle mooy waxtaanoon nañ ba juboo pour ñu dem fédération. Mm-hmm. tas CNG dem fédération loolu nag ñu ngi koy doog a dégg man boog maa ngi koy doog a dégg. Euh, per Omes moo ko wax loolu lañu waxtaanee woon en 2018. Mm-hmm. deux jours yooyu waxtaanoon nañ ba juboo pour ñu mën a euh, tas CNG def ko fédération. mais loolu aussi jàngat bu yaatu la parce que euh, tey. est-ce que ñun pare nañ pour dem fédération certes ñenn ñi bëgg nañ ko mais ñeneen ñi aussi am nañ ci ay doute surtout moom parce que nee na mën nañ dem fédération mais li problème bi mooy am na écurie yu bëri yoo xamante ne nii amateurisme bi moo fay dox. Mm-hmm. maanaam ñu ngi ci am nañ écurie am nañ seen i kayit am nañ ay mbër mbër yi am nañ ay licence mais dëgg dëgg dëgg li écurie di laaj au plan euh, professionnel. Mm-hmm. boo xoolee matale wuñ ko. président sax boo ñëwee. très nga gis président bu compétent. très nga gis secrétaire général bu mën liggéeyam. donc écurie yooyu aussi bu ñuy dem fédération euh, gàllankoor lay doon ci ñoom parce que amuñu euh, ressources humaines bu bu bu bu bu baax bi nga xam ne dina leen permettre ñoom ñu mën a participer ci loolu. waaw loolu am na solo Serigne Bass euh, ñu ñëw ci keneen ki nga xamante ni dafa mel ni fii day tontu ondulofu muy Malick Ngingue Malick Ngingue na mooy président mooy mooy mooy mooy président wu écurie bi nga xamante ni mooy xam sa cosaan moom euh, dafa mel ni fii day tontu Ondeloufou mi nga xamante ni moo waxoon keroog ci dox bi mu demoon këram seeti ko ngir ñu waxtaan ci écurie ba ana lu mu ci wax moom Père Malick. waaw Père Malick boo xoolee presque suñu jàngatu keroog bi. mën naa ne dañoo rejoindre ci suñuy mots. Mm-hmm. ndax euh, keroog waxoon nañ leen ne Ondeloufou dafa ne écrit xam sa cosaan sérieetuñu ci entraînement nañ doon doxalee doxaleetuñu noonu loolu moom mooy expliquer seeni perfor contre performance yi nga xam ne écrit bi def na ko parce que gis nañ ne euh, Jordan depuis mu bëre ak euh, rëg-rëg ba léegi gisaatuñu ko naaru sokaas depuis mu bëri ak euh, euh, double moteur. Mm. ba léegi nu ko soog aussi bi muy bëri ak gàmmu géey de moom lay soog a ñëw ca écurie ba. donc yooyu noonu nekk ay biir yoo xam ne tegoon na ko ne même président bu Malick ñi ngi sax xamatul ci écurie ba dara président nag la mu xamle mooy euh, li ñuy wax rek ci français. le linge sale se lave en famille. Mm-hmm. donc ja problème yi nga xam ne ni am na ci kër gi ci biir kër gi lañu koy réglé duñ dem ci mbedd mi di ko fa saaw donc moom li mu xamle mooy ginnaaw Onde Le nee na moom président xamut ci écrit bi dara moom dana dem gëstu ngir xam ci écrit bi dara waaye mu ngi koy woo à ce mu ñëw ñu toog waxtaan donc moo tax nangu cee yaatal mais li muy wax rek mooy seen problème mu écrit du loo xam ne dañ koy teg ci média yi donc naan écurie xam sa cosaan nii écurie xam sa cosaan ne kon loolu aussi jàngat la pour écurie yëpp am na problème yoo xamante ni ci biir écurie bi la ñu ko war a mën a régler euh, nit ñi waxtaan seen biir régle trouver terrain d'entente trouver ay solution aussi pour ñu mën a continuer ci rythme ba ñu nekk. doon solo la parce que en tant que président boo waxee dafa mel ni li nga waxoon keroog moom la boole wax rek euh, ci li nga xamante ne mooy làmb te làmb tamit doon na sport boo xamante ne. képp ku koy dund rek moom ngay dund ndax sport la boo xamante ne suñu sport la ñun ñoo ko moom te rawatina ñun ñi nga xamante ni dañ koo bëgg fu làmb am ñoo ñoo ñoo fa lu xe làmb xew la ña nga ca sëñ Bas daa mel ni depuis bi jàngoro bi ñëwee ba léegi euh, am na lu la manqué lu bare bare bare lu lu jëm ci làmb ndax daa mel ni mbay ak lum Euh, ak euh, lum tudd nday faatu jali aadama jali ak ñeneen ñi nga xamante ne lamb nga leen boo leen di déglu làmb ñu son bi di def ci ci ci sa bopp ah sëñ Bass loolu maa la déggal daa mel ni lamb nga naa leen moom di leen suivre en live euh, di leen gis nii ñuy ñuy dóor lu neex waaye maa ngi leen di wéttalikoo nag maa ngi leen di wéttalikoo parce que saa yu ma toogee defuma dara rek son bi laay taal même bu ma nekkee ci machine bi sax des fois ma taal bu mbayang bi wala bu ndey faatu Adama Jali walla bu Agnès déglu wala suñu yaay maye ndep déglu leen xam nga parce que nag ay séeréer lañ xam nga rek soowu séeréer dafa am muy def ci ñun mais foofu rek jiile jox nga ma benn xel parce que aussi am na loo xam ne euh, ñëpp ñu ngi xaar suite bi mm-hmm. jàngoro ji dafa gàllankoor làmb ji xam nañu ko te bés bi ñu doon arrêté làmb ji. foog naa ne jour boobu ñu ngi woon arène nationale. ak Fourrière. ñu ne làmb ji suba lépp luy làmb ci territoire national bi dañu koy arrêté. boo xoolee boobu foog naa ne euh, am nay combat yu baari yu ñu jàppoon. dimanche bi bien léegi ci loolu. Euh, dimanche bi Gamou Gueye waroon a bëre ak Sokh. dimanche boobu noonu Valdo waroon naa bëre ak Ahmed Deme. ci Linguère donc am na yeneen i combat yi waroon arène euh, kii Adrien Senghor aussi amoon na gala. ca Bargny mhm. très bien donc am nay combat yu bari yoo xamante nii ñu ngi woon en ñu arrêté ko bañ ko arrêté dañoo jox délai. ne lépp luy événement dañ koy arrêté jusqu'au 19 avril moom la ñuy reprendre activité yi ñu dem ba benn instant ñu dugg ci état d'urgence def couvre-feu ne 15 jours moom lay durer couvre-feu bi bi muy jeex fekk na jàngoro ji mu ngi soog a door sax di commencer def ay mbiram ñu yokkaat ko ne léegi couvre-feu bi mu ngi war a jeex le 4 mais léegi couvre-feu bi war a jeex le 4 mais état d'urgence bi war a jeex la 4 mais ce qui veut dire que kon activité làmb yi du reprendre le 19 avril bi ñu waxoon foofu it nañu xaar beneen pousse boo xam ne danañ ko pousse au delà de 4 mai te bu ñu àggaatee ba 4 mais mooy làmb ji tëj na mooy làmb ji tëj na parce que tey bu 4 mais jàllee bu fekkee ne jàngoro ji euh, yàlla tere yàlla tere mu ngi fi boobaa day gën a metti parce que saison bi dañuy mujj ndëppal ko ba déwén. waaw bu fekkee ne sa eh, kii bi dañ na nag jàngoro ji dañ na le 4 mai boobu noonu digganteem ak koor gi day sës rëkk ci koor gi donc dañuy demaat ci beneen trêve dugg ci koor bu ñu génnee ci koor gi ñu ngi dugg ci mois de juin fin juin jàpp juillet donc buñ ñu duggee ci côté fin juin euh, jàpp juillet boobaa dañuy jege nawet bi. mu waaw dañuy jege nawet bi juillet août bu boobaa aussi combat yi nga xam ne reporté nañ ko nii rek du fi xej kon saison déwén ba moom la ñuy moom moom la ñuy waajalaat bu fekkoon ne sax nawet bi duggul ci diggante bi mën nga am prolongation jéem a am benn un mois deux mois boo xam ne da ci def ay activité mais loolu doo ko mën a def parce que nawet bi day dugg te mbëri ci bëri ñu ngi ci tool yi ñun nii dañuy delluwaat ca tool ya bay donc am na yoo xamante ne nii bu nawet jotee dañuy wa rompre activité yi daw dem ca tool ya kon loolu aussi gàllankoor lay doon mais bu fekkoon ne tey loolu amul bu ñuy reprendre aussi arène nationale moom moo fi nekk fu ñuy tëggee làmb te du mënta mën a contenir journée yooyu yëpp donc forcément il faut gars yi delluwaat ubbi Iba Mar Diop ubbi arène nationale ñii di tëgg arène nationale ñii di tëgg Ibama ñii di tëgg tëgg ñi pour ñu dabe. fexe combat yi nga xam ne reporté nañ ko ñu fexe dóor ko ci biir saison. sëñ bas maa ngi jégalu waaye loolu xam naa ne du lu mën a ne ñu ubbi Ibamaar ndax Ibamaar dégg naa ci ci benn mag mu ne ma euh, dañ ko voté en assemblée nationale que Ibamaar Diop dootuñ fa tëgg benn benn programme bu jëm ci làmb kon fi mu toll nii ñun ñi nga xamante ni ñooy ñooy ñu mbëri. ñiy bëre département wu dakaar yëpp arène nationale rek la ñu mën a bëree li nga xamante ne mooy seen làmb aadama léegi euh, noonu la demee ndax sëñ Bass boo xoolee làmb ni muy bindoo ak ni muy combat bu mel ni Siteu ak Papa Sow combat bu mel ni Siteu Papa Sow mu doon combat boo xamante ni ñu ngi ko doon waaj ñu ñëw ba le 5 avril la ñu war a bëre ñoom ñaar euh, su ma juumul léegi combat boobu fomm na te est-ce bi dinañ ko mën a bëre ren. Euh, lu mel ni Modou Lo Ama Balde boobu moom xam nañ ni mënul am ci saison bi ren kon Ama Balde euh, déggal Siteu ak ki nga xamante ni mooy Papa Sow moom lañ mën a def le tout ba sauver ko ak gàmmu gay soq nga xamante ni mais est-ce que combat yooyu sëñ Bass dina mën a nekk fi mu toll nii ci saison bi. non mënatul mënatu mënta nekk ci saison ren bi moom. Hmm. parce que mënta nekk mooy euh, gis nga le 4 mai. Hmm. la ñu jëm. pour reprendre activité yi bu fekkee ne jàngoro bi jóge na fi te bu ñu demee ba le 4 mai diggante le 4 mai ak euh, koor gi day jegante de trop bu boobaa aussi benn waajtaay bi du fi xej pour ñu mën a waaj reprendre activité yi bu ñu duggee ci koor gi bu ñuy génn ci koor gi rek ñu ngi dugg ci nawet bi donc foofu aussi waajtaay bi mu war parce que yooyu ay journée yu mag la pour nga sauver ko il te faut un mois de préparation wala deux mois de préparation au moins pour nga mën a sauver journée bi duñ ko sorxo sorxo donc loolu aussi ay gàllankoor lay doon yoo xam ne nii dana tax ren saison bi loolu yëpp du ci xej xanaa déwén ñu teel ko préparé nga xam ne nii ouverture saison bi normalement octobre novembre ñu dóor combat yooyu nga xam ne nii ñu ko préparé woon ren balaa ñoo dem janvier yeneen combat yu yu mag taxaw mais nag euh, li ma gis mooy lii nii peut-être day day defaraat làmb parce que mbir bu amee rek nanu ko jàppee ni mu ñëwee li tax ma ne day defaraat làmb mooy am na journée yu bëri yu mu reporté yoo xam ne nii reporté nañ ko te pourtant calé nañ ko ba pare saison ren la waroon a am léegi forcement saison déwén lay am te buy am saison déwén aussi ca ouverture saison ba lay doon. bu amee ci ouverture saison ba kon am na yeneen i combat yu ñu war a taxawalaat yeneen i combat VIP yu war a taxawaat dooleeku ak Siteu Papa Sow dooleeku ci diggante Sokh ak Gamou Gueye donc ay combat yi saison lay doon saison boo xamante nii saison bu neex lay doon saison bu ñu gëj a gis buñ gëj a gis dina gis am ay combat parce que Modou Lo foofu lañ ko nar a xaare ji Balla gay Boy Niang bu fekkee taxaw na fa lañ ko nar a xaare ji wala Balla Gaye ak keneen parce que Balla pour mu def ñaari saison blanche aussi xam nga ne. xel nanguwu ko ku waaw mu ngi noonu. dañ ko bëgg Tafatin il faut ñu fexe mu bëre. Gris Bordeaux il faut ñu fexe mu bëre. Yékini Senior fëgale mi waroon a bëre il faut mu bëre ji déwén. donc saison la boo xamante ni li ñu namoon ci ay combat VIP am naa yaakaar ne danañ ko fa gis bu yàlla defee jàmm rek jàngaro bi teel fee jógee. làmb fi mu toll nii sëñ Bas li ñëpp di jooy dañ ko war a mën a waxtaan ci moment bii ñu toll fi mu toll nii activité yëpp taxaw nañ euh, làmb amatul promoteurs yi am nañ temps te man démb maa ngi koy wax benn mbër ma ne ko euh, Angleterre bu dóor dóoraat. ñu daje ma ne ko instant yi moom xam naa ne sonn nga ku la fëggoon cent mille sax nga jël avance muy ree naan ma déet mais est-ce que fi mu toll nii mbëri fi ñu toll actuellement nii du du jot ñu ñu xoolaat seen taxawaay ndax promoteur bu mel ni man mun naa ñëw sa kër fekk la ak fi jamono bi toll nii mu jox la avance boo xam ne du la gënal nga jël ko ci sa coobare bopp est-ce que du jar ñoom it ñu xoolaat seen bopp xam bu baax fi ñu jëm promoteurs yi tamit li nga xamante ne làmb dañ ko manqué ñu war di mën a gisee fi mu toll nii di ci liggéey muy sponsor ndax fi mu toll nii koo ci wax mu ne la sponsor la ñuy jooy ñoom it am nañ temps boo xamante ne war nañoo mën a toog waxtaan ci seen biir mën a waxtaanee xool sponsor yi nan la ñuy mën a bu bu bu saison bi ubbee rek wala bu bu jàngoro bi jógee fii rek ñu mën cee waxtaan ba buñ demee seeti ci sponsor yi ñu mën leen a ñëw gunge leen ci làmb loolu yëpp liggéey la boo xamante ni mbër yi war nañ ko mën a def waaye promoteurs yi war nañ ko mën a def. waaw euh, yaakaaruma sax ne mbër danañ ko tuuf avance période bi euh, li tax mooy euh, man bu ma nekkoon promoteur boog du ko def parce que xaw ma affaire yi fan la jëm xaw ma naka lay mel donc bu ma amee as tuut bu may tuuf mbër dama ciy toog ba xam situation bi nu muy demee beneen bi mooy mooy mbër moo xamante ne nii tey conscient nga ci sa bopp bu ñu la mën di jox période bii nii doo ko jël. parce que xamoo affaire bi fan la jëm buñ la joxee avance ci période crise bi certes neex na mais da koy lekk. doo ci préparé y' a rien au village. au village mais ah, tey buñ la joxee avance su un million wala cinq million. li période bii ñu toll dund nga ciy tal. faj say soxla doo dund nga ciy tal mais danga koy jël pour pour dund ci parce que tamit mag lu ko teree añ añ la. Eh mhm. mooy bu activité yi reprendre au normal bu boobaa fa la problème ba di nekk. parce que da nga jot avance boo xam ne nii taal nga ko bu yàgg te yaa ngi war a préparer combat donc yaa ngi joué say reliquat boo boo moytuwul sax bu jeexee dana la jural loo xam ne nii kiiwut mais gis nga jili lu la yàlla teg lu ne danga koy nangu borom bi pause bii nii borom bi moo ko namm ci ñun lañu ko nangu ñu toog pause boo affaire bi jàll te gis nga aussi euh, du ñàkk beneen jàngat ñu waxtaan ci jili làmb ji problème boo wax ñu ne sponsor sponsor sponsor ay at a ngi nii ñu ne sponsor mooy problème mu làmb ji mais te ñun amuñu benn capacité boo xamante nii capacité intellectuelle bu ñuy permettre ñu jël sponsor mettre ko à l'écart tege ko nële te jéem a contourner sponsor xool naka la ñuy def ba làmb ji avancer sans sponsor. Mm loolu lu luñ jar a waxtaan la lu ñu jar a gëstu la parce que tey nga jël lu toll ni làmb ay dund yu baree baree bari aju ci nga aj ko ci sponsor boo xamante ni saa yu ko neexee lay ñëw saa yu ko neexee lay dem loolu aussi teguwut fenn. yéen ni da koy ñaan ngir mu ñëw wane wane li mu yor te yow yaa koy wane li mu yor. Mhm. donc li gën mooy ñu jéem a xool naka la ñuy def lan la ñuy xalaat ba jël sponsor teg ko à côté. Mhm. jéem a xool avancé làmb ji ci suñuy propre moyen ci suñuy propre xel. ba nga xamante ni tey sponsor mu ñëw mu ñàkk ñëw du teem mbëri di feyeeku seen xaalis combat yi di daw saison bi di neex mm. loolu xel yaa ngi fi parce que tey bëri na fi sport ay sport yoo xam ne amuñu sponsor te ñu ngi avancé seen seen seen équipe boobu di ECCO mm. saay nawetaan jotee. fu ngeen di jëlee sponsor amu leen sponsor. du ngeen ko waaye ñun ñooy suñu sponsor bopp ndax ñun waa gox bi yëpp saa yu ASC bi amee dañuy làmb suñu ñaar téeméer téeméer suñu junni dajaloo ko boole ko ci ASC. déedéet regroupement yéen a ngi joué seen i ñu ngi ci ay conditions yu baax. feneen ak feneen loolu moo fa am. donc nawetaan bi rek tey amuñu amul benn équipe bu fi am sponsor. te pourtant bu nawetaan jotee da ngay gis équipe yi li ñuy financé tey seen budget. Mm. boo ko xaymawaatee da nga naan déedéet. te ñu ngi dem stade ñu ngi fubal ñu ngi am ay restourne mm. ñu leen di restourné ci li nga xam ne supporters yi dañ koy dugal bëri na fi ay pexe yoo xamante ni jiile bu ñu ko xoolee waxtaan ci dinañ trouver solution mais pas ñuy basé wu ci sponsor. Mm. Euh, sëñ Bas ñu lay jaajëfal xam naa ne waxtu bi ñu amoon ci waxtu jot na euh, ñu lay jaajëfal bu baax a baax lan nga bëggoon wax. ci loo xamante ni jëm na ci luy yokk làmb fàtte naa ko sax euh, dinaa la ko wax parce que sànq ci biir waxtaan bi dafa am benn wax bu am importance boo mu wax dama ne la ba xam namm nga mbay euh, mbayang lum euh, wala aadama aadama nday faatu aadama jali nga ni ma ñoom laay wettalikoo mbokk internet yi dañ koo bëgg di ko di ko wéttali ko est-ce que bu ñuy def jàngat làmb du jar des fois nga may leen benn son Adama euh, Ndeye Fatou Adama Jali benn cinq minutes wala wala wala ah, mbayang lum parce que ñoom it ñu koy defalee fi nga xamante ne fa lañ nekk ndax xam nga ne wasaare ñu koy seetaan la ca baree bare ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ci diaspora bi di seetaan wasaare làmb loolu moom xam naa ne di ko def incha allah. incha allah dinañ leen ko promettre incha allah bu ñu fi dellu si waatee danañ indi beneen façon boo xamante ni nii dana neex ñëpp dana neex amateur yëpp waaw loolu moom ñun ñoo leen ko promettre. incha allah. ñu leen di jaajëfal bu baax a baax a baax di leen tàggoo ci tàggoo bi nga xamante ne moo dul tàqali ko sëñ Bass ma lay jaay jaajëfal. waaw cant ak ngërëm ñeel na la ñuy sant di gërëm ñi nga xam ne ñooñu doon bàyyi xel boobaak léegi di sant aadama euh, moom mi nekkoon ci caméra yi di yëngal bagage yi ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan réew mi yàlla fi yàlla def jàmm yàlla na nu yàlla jàmmal jàngoro bi yàlla fi teel a jóge bañ fee lor kenn euh, ba ëllëg incha allah ci beneen xew-xew jërëjëf sëñ Bas noonu laay santaate bu baax a baax a baax sama boutiquier bi Ahmed Ba nga xamante ni macha allah fi mu toll nii lu ma jël ci boutique bi danaan ma jëlal rek réew mi réew li mel sëñ Bas des fois du ñàkk euh, xarbat di ci baax Ahmed Ba sama boutiquier boobu séeri Zubretu Diallo jéeri maa ngi koy siyaar bu baax a baax a baax mbokk yi di leen tàggoo ci tàggoo bi nga xamante ni moo dul tàqali ko ba ëllëg incha allah ci beneen njàngat làmb jërë ngeen jëf.